tomb boo xam ne xew-xew jamono la ci jamono ji ñu tollu néew na nit di déglu rajo walla muy xool tele walla muy jàng yi ñuy bind bis bu set ak yi ñuy bind ay bis bu ne ak yi ñuy bind weer te fekku ca ñuy wax Euh, ab jiñante naan kii moo jël am ñu naan jëlut loolu daal coowul alal la coowul alal nag gannaaw ñun xamaguñ nu deme dégg lañ ci amagun dañuy nekk ba xam ca lu leer door caa wax waaye ñi nga xam ne bokkaguñ ci lañ gën a waxal xamal leen ne bu fekkee ay jullit lañ tolluwaay yu ni toll yu ni mel am na lu ca lislaam wax ak ñoom mbirum alal daal ab jullit war na caa xam taxawaayam doonte yàlla moo ko sant muy xëy di wuti ak di gont di wuti loola lañ cay dégg mooy lislaam <clears throat> mooy diina ju sëkk ju daj kap nit li ko tàmbalee fii mu wax ko it bu jógee fii fa muy mujj ak moom bàyyiwut ak moom dara kon waajal na fii ñu nekk ci kaw suuf nu fi ab jullit war a nekk waaye xàllal na ko yoon woow it bu ca jaaree bu ëllëgee yàlla nañu yóbbu fañ gënal waaye lépp waajal na ko nim sonne ci jàngal nit pas-pas mooy lan dëgg-dëgg jàngal nit nu ñuy jaamoo yàlla jàngal ko jikko jàngal ko ab jëflante ci la dugalaale ana nu muy joxe ak ruuxam li muy soxla ak yaramam bii nga xam ne day lekk di naan kese lu muy soxla yaar yooyu daf leen a boole ba mel ne mënoo leen ràññale te moo ne ak len lu nekk ak fa muy dox ndax ndox ak deret fi muy jaar ci nit lii di jëm ne lee di jëm ne li feeg nit kaa ngi dund duñ mas a jaxasoo duñ mas a laalante fenn te mënoo ko tàggaleeg jëmmi nit ki noonu la lislaam mel bi muy jàngale nit ki ci ak matam ni muy jàngale nit nu muy fexe ba ak ruuxam di dund ak ni muy fexee ba aw yaramam di dund ñoom ñaar ñëpp ñuy dund te kenn du yàqal sa morom dara waaye day fekk nag jullit bi yor pas-pas bu dëgër boo xam ne daf koy wuutale ak ñi nga xam ne bokkuñu ak moom pas-pas ndax su ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk euh, yàlla di wax ak ñun fu mu bañ ab jullit dugg fa ci pas-pasam ndax xëccoom alal bu fekkee ay jullit dañ caa bokk ku ne du joxoñ moroomam war nañoo xoolaat seen pas-pas pas-pas nag gannaaw bu gëm yàlla mi ñu war a gëm ak yam yi àndal yépp jàlle daf caa am yeneen yoo xam ne léeg-léeg nit ki daje ak moom daf caa am boo xam ne léeg-léeg nit ki daje ak moom ak boo xam ne ñëwagut léegi bi nit moom léeg-léeg mooy ab dogal bi ñuy lim sax daa mel ni moom lañu mujje ndax moo gën a jafe gëmub dogal ñaareel bi nga xam ne àggaguñ ca mooy yowmal xiyaama yowmal xiyaama nag lu ëpp jullit di dugg lu nekk war na ca wan yoon wam ca wuute ak ña nga xam ne jàppuñ ne ñoom luy ñëw la ñu ngi ñuy wax ci alxuraan naan am na ci nit ñi ñoo xam ne gëmuñu ne ku dee dana dekkiwaat loolu nag ku ko gëmul lu ko neex mën na ko def fii jàpp na ne àtte fii rek lay mën a yam dañu koy daan alal walla ñu tëj ko kaso kese mu jeex ñi gëm loolu moom seen pas-pas des na bi ko yàlla di nett li yonent bi sax amulul solo ñoo ñooñu seeni wax daf ne zaama allazina kafaru an lan yubaasu zaama mooy nee na ñeey nee na ñeey bokkut ak xaala bokkut ak ji wane ne kii li muy wax lu leer lu ko leer la zaama alladina kafaru an la nee na ñeey dekki amut kon lu leen neex nañ def ndax dund fi rek la yem waaye nag yow yonent yaa rasulallah nee leen qul wa rabbi maa ngi waat ci sama borom ne lu mu wax dana ko def la tubaasunna la tubaasunna ñuy dekk ëllëg ngeen summa la tunabba'unna bima amiltum dana leen dekkal ëllëg kenn ku ci nekk mu ne la lii sab dossier la jàngal ñu dégg jàngal ñu dégg bu dee atteb jamono kii atte moo naan diw nangam ak nangam ak nangam ak nangam lañ ko fi indee woon nangam ak nangam lañ koy toppe waaye ëllëg nag dañuy jox ki ñuy atte ab téeréem ab registre am ab dossier muy wax ca kaw iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba tey daal yaay wax ñëpp dégg la nga doon def man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man fa innama yadillu waaye kenn du fa kenn di ko jàngal ay dossier niñ koy defee ci kaw suuf moo tax mu ne wala taziru waziratun wizra uxra foofu moom euh, daqaar du fa du fa du fa wuum ku ko mëccut su ko defee ku gëm ne moom fii la yëpp yam lu ko neex mën naa def waaye ab jullit moom lu muy duggati na bàyyi xal na ëllëg day dekki suñu borom nag ci ndimbalam ak yërmandeem ak kattanam Euh, néewut bu benn jullit wuti waaye lu muy wuti na laaj ba xam lan la war a doon lu ab jullit war a wut lan la ak nu mu ko war a wute moo wax moo tax mu ne bu bëccëg jotee bu bët setee ba jant bi na dàng dem leen wuti waaye nag wuti ga na doon lu ab jullit war a wuti donte li li nit di wut lépp yàlla na ne mi mi ngi ko tasaare ci kaw suuf si huwa alladi jaala lakum al arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur lu ngeen mën a wuti te laaju leen lu ngeen mën a dajale te laaju leen ba xam lu julli war a dajale laam déet na ngeen xam ne ëllëg gi si biir an nushur moom mi ngi ñëw yàlla noonu yàlla dimbale te neewoon na seytaane yaa xam waaye nanga nga xam ne yaag nit ñi ngay fexeel ñépp da ngeen fi man ëllëg su boobaa ne ku fexe ba topp seytaane rawatina ci wàllu alal yàlla wax na ko ci alxuraan shaarikuhum fil awla fil amwali wal awlaadi waidhum waaye nag wa ma yaiduhum sheytaanu illa gurura euh, dañ naan alal moom lu ñuy lijjanti la kenn du ko liggéey loolu pexem seytaane la eh, waaye nee na ëllëg seytaane lim doon digge ci alal naan ko ko am ci VIP yi ngay bokk VIP saa su nañu fàttali ko da gis ñu naan barab sàngam ku bëgg seetaan nangam toog fii nga xam ne ñëpp a yam nangam la waaye faa tudde ko VIP nangam la mu gën a jafe fuuf ëpp ak njëg yàlla nee na ci alxuraan loolu seytaane moo mooy waxee noonu maanaam fi gën a yées lay gën a jafeel ak njëgam su ko defee nag ku ne bëgg a bokk ca ña toog fa gën a jafe ak njëg ngir wanu nga xam ne yi mboole ci ay jikko dafa bari dana wanu ne maa toll nii dana wane ne moo am alal dana wane ne moom bokkatut ci ñii ma nga ca ñaa te bu demee kat moom ñëppay bokk lu ñuy gis ñoom ñëpp ay bokk lu ñuy gis kese di ko dégg moo tax ba mu ne jaxal na layla libaasan wa jaxal na nahaara maasha ab julit moo ci war a gën a farlu ndax moom la yàlla gën a waxal wa jaxal na layla wa nahaara ayatayn fa maxawnaa ayata layli wa jaxal naa ayata nahaari mubsiratan li tabtagu fadlan min rabbikum wa li taalamu adada sinina walxisaab wa kulla cheyin fassalnaahu tafsila ba mu leer nañ ci lu mu war a wuti ak lu mu wuti ak lu mu war a xëy ak lu mu warut a xëy bi mu gisee nag nit ñu soogu ci yoonu wut alal euh, bu yàlla gisee tekki wut na day soog a gis waaye li ne fàng ñëpp di ko gisandoo ci la ñuy àtte bi mu gisee ñëpp wutali alal ak noo ko mën a ame doonte lislaam néewul ku tudd nii wala ku tudd naa wala ku sant nii ku sant naa daa war a am ci alal lu ñeneen ñi dul am téewul kenn ku nekk ak nam toll ma ngay wut waaye daleen di xool ba yàgg mu mu yónni ci bi ci nit ñi ne ko ah waxal balaa waxa weesu fekk am na lu xewoon alhaakumu takaasuru ñu bari li seenu ëlluway soree di soree di jàng nañ alhaakumu takaasuru waaye foofu nit di toll ci ay at ñu di ko ko jàngal mu koy yi dem dañoo war léegi ginnaaw dañuy soppi lu nekk su fa gonee tolleetee ñu leeral la ko alhakumu takaasuru xatta zurtumul maqaabira lu muy tekki yàlla nee na alkande wàcc na ci kaw suuf ba tasaaroo lool daanaka foo xool séenku tuskare ji lu mu doon du du jàngoro juy wàlle du ñuy dogale nit ñi di jël seeni alal kese waaye alkande ji mooy ëpplante bi xew ne di ëpplante ba fàtte ne ëllëg day ñëw nee na kalla bu leen ko def wala axakay sawfa taalamuun léegi tey xalset ngeen a xam xalset mooy loo xam ne su reetut bokk yi ku dund téeméeri at dañ naan ak gudd fan waaye bu xoolee li àdduna amagun laata muy judd moom ak li fi àdduna dana amaat dana xam ne yàggu fi sawfa taalamuun summa kallaa sawfa taalamuun kallaa benn bu ci nekk ak la muy tekk law taalamuuna ilma alyaqiin la tarawunna aljaxiima summa la tarawunnaha ayna alyaqiin summa la tusalunna yawma idin an annaim su ngeen xamoon ne lan yuxlifa allahu waadahu wa inna yowman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudduun du ngeen di def da ngeen fab sawara teg seen kanam te bañ a rafet njort fab àjjana teg seen kaw defe ne ku yor li nga yor du dem sawara nee na ni suuti ngeen jànkoonteeg ilmul yaqin ilmul yaqin mooy lii tànganaam tàngul nga teg ci sa loxo kenn du ne la teggil xam nga ne dafa tàng aynul yaqin mooy lan liñ lay kañ lay wax ku gudd la am ku gàtt la daa weex wala daa ñuul nga dem ba teg ci sa bët fas yéene bokk war a bokk ci ne koy nettali mooy aynul yaqin ku ne gis na ba tàyyi ku dee aynul yaqin la Euh, gannaaw ba ilmul yaqin jàllee dee mu fekkee dee laa tudd dee moom ku ne xam na ne ñëpp ñëpp xam nañ dañuy dee waaye nit am nañu teg seen bët ba tàyyi ku dee ba ñu ko dencee maanaam rob ko ñenn ñi naan tegatuñ ko bët am nañ ci lu leen leer janoo ko moom xam ne lii mooy dee ku dee nii dañ koy def teg nañ ki seen bët mu ne nag ku awoon ci ngirum ëpplanteeg sa moroom ëpplante nag ku ne xam na ne jaariñ ko ci yoonu liggéey ëpplante du liggéey kase kase mënta doon liggéey kase kase liggéey kase kase bi lislaam santaane ba tax mu naan ataakumu takaasur ak yaa ayyuha allazina amanu la tulhikum amwalukum wala awlaadukum an zikrillah zikrillah am nañu ko tudde julli juróom ak i bokkam arkaan kii ëpplante dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu dee julli juróom yooyu lañ njëkk a tudd léeg-léeg duutu ko tal duutu ko tal xanaa suba gi nga xam ne moom business amagul maanaam liggéey bi tàmbaleegul kese mën na koo julli këram xëy waaye tusbaar takkusaan timis ak gee danaan naa ko def en gros rek ni muy ni muy liggéeyee léeg mu defal nit en gros bu demee kër ga rek fekk mu am jot mu boole leen ñoom ñëpp te suñ mag bi noonu ne wala takun mu axira salaati an waqtiha bi gayri usrin yaati bu kenn néegi waxtu julli business am bu mu nekk wala lu mën a nekk waaye foofu teg nañ ko ci suuf ndax takkasu ëpplante am na ñoo xam ne bu weeru koor bi jubsee mu taseeg seen tukki tukki boo xam ne boo demee fa ngay dal moo dàq sa kër daaba ji ngay war di tukki moo daq sa daaba ji ngay war moo ko gën a sedd gën koo yàq mu ne dama ne ci tukki moo tax tukki bi kum ci nekkal boppam terewuñ ko mu dog koor te terewuñ ko tam mu wàññi julli waaye am na ñooñ koor gi la ñuy dàkk ndax barab sàng moo gën a sedd moo gën a gàtt jant moo gën a neex ndoku neex ndoku te it guddi gi moo gën a yaatu ci sama business ndax biti gi guddi la ñuy ubbi kese kooku nag dugg na buntu ëpplante ak rawante ci barile te yàlla nee na woon ci alquran innama alxayaat ilamu annama alxayaatu dunia laibun wa lahwun wa zina wa tafaxurun baynakum wa takaasur fi l amwali wal nam ko ñàkkale solo ka mathali gaytin ajaba alkuffar nabaatu mi ngi mel ne naataangal nawet bi rek foo xool day wàtt àdduna na ngeen xam ne fola bànneex sañse euh, ku ne di wan sa moroom sa ki nga doon ak ëpplante ba nu la soob nga koy wute waaye ak a ñàkk solo mi ngi mel nawet bi rekk dangay ngay xool àll bépp wert fu tóortóor war a génn génn fa fu war a werte wert fu war a xonq xonq fu war a bula bula mu rafet lool boo ko jàppee ne lii du fi jóge rek mën ngaa jow saabu jaas uppee ba bis bi dellusi boo fa jaaraatee doo ko xàmmee summa yahiju fataraahu musfarra summa yakunu ku ko toppee noonu nag wa fil axirati azabun shadid jàppewu ko woon noona ba fàtte woon na ne fil axirati azabun waaye ñi nga xam ne dañ koo jàppe ne nawet rek la adduna lu mu naat naat nawetu kese la moog nawet ñoo bokk ba àtte ñooñu moom mën leen dugal maxfira min allahi wa ridwan yàlla nañu ci yàlla boole wa mal xayaatu dunia illa mataaul xurur moo tax saabixu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatun arduha ka ardi samaai wal ard kon bokk bu ma ko tënkee mooy ku dib jullit du nu ko neex wute du lu ko neexit wut moo tax islam bi muy jàngale pas-pas jàngale nu koy jëfe ci ay cër jàngale jikko ak jëflante daf caa moytuwaale loo xam ni fukk mënoon nañ caa jariñu moom mu ne ko dëriix dariix moom fot rek dariix mooy lu nit war na te sàqamewu ko tarxan ko bu dee yàpp mu tarxan wala mu fot benn su ko wanee ba mu jàll it mën na koo indil seere mu ami fan du génn fenn tàmbale yàq fa mu toog bu fotee mën naa def la kilifa ga waxoon ci kanam kanamu njabootam ñu teg ndab li tekaasur dugg ko mu bëgg cee ëppale ñam ko bokkal jëkk tibb ñu jox ko war ma ji war may jëkk tibb mu jëkk tibb seex gaa yi bëgg ko topp fu mu jaar ñu jaar fa mu tibbandoo ak ñoom ëppale leen ab tibb boole mboolem ñenn ci ndab la loolu ne mu tibb ja boole kook tibbam boobee muy ñaareel la muy benn muy bu jëkku gaa yi ba mu seexandoog ñoom laata ñuy tàmbalee sax xame mu mu bëgg mu tibbaat yor ci loxoom ñu war a def ñaareelu tib muy ab ñetteelam mu sax ko fas yéene tibaat tibbum ñeenteel di waajal ab juróomeel daal di fot ndax lu nekk ak na ko yàlla bindee fenn fu ne ak nam fay war a jaar yàlla noppi na ca bu yàgg mu ne teg la lam tibboon mënta dem mënta dikk mu liyaar liyaar xamuñu li wax mu set kim ci gën a wóolu bind ci suuf ne ko ngàdd ma kooko dagdagal bopp bindaat ne ko sañu ma ko mu bindaat ca pegg ba ne ko ndigal la loolu nag takaasur moo koy andi yàlla na ci yàlla musa su ko defee li ab jullit war a wut amul sant wuy tax mu war caa ëpple amut gaña guy tax mu war caa ëpple amut menn mu tax mu war caa ëpple te yàlla noonu yàlla musal ba ñuy dund ci jamono joo xam ne dañuy jël ci ñi néew doole di ko dundale ñu am doole wolof daa ko léeb bu yàgg naan muñal rek ndax cerey buur moom rongoñi baadoo laa koy siim waaye du rees de bu reesee fii it du rees faa kon wàllu koom-koom ak alal te koom-koom ëmbaale alal la ca yàlla gën a moytuloo jullit yi mooy lu jëm ci ger ak riba riba moom ki yëngutu ci wàll gu mën a doon mën na ko ca boole te du ko yëg bokk na ca rek facture bi nangam la ñaari téeméer la mu ne la bind ci ñaari téeméer juróom-benn fukk rek bu demee ka ko yónni woon fay ko ñaar téeméer juróom benn fukk wala yu ni mel bari na bari na lool ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp ku seq ki koy jaay ak ki mu koy bindloo ñëpp ku seq waaye ger moom mu ci gën a ràññi ger nag ay jeexitam ak li muy dugal ci aw xeet mu ngi mel na rek jàngoro jàngoro la joo xam ne buñ buñ tàmbalee ñee kañ doon ger rek ak ñii gere buñ leen tàmbalee ñee ndax liñ am daa jékki-jékki rek ni yu réet léegi te ñëpp dugg ci moo tax sax ñu naan desu ko liggéey dañ koy lijjanti waaye nag yàlla nee na woon ci alquran am na ci yahudi ñoo xam ne natt bi leen yàlla tegoon ba mu wàll ñépp mooy dañoo xëy xëy daganal lu yàlla xaraamaloon yàlla moom itam xaraamal ci lu mu daganaloon ci ñoom ñëpp ñu ne kàkk waaye yëmu ci ñoom kese de ndax am na foofu bu taxawee féppay taxaw euh, woto boo xam ne bii ka koy dawal moom képp maa dawal ci woto bi wala moo am sañ sañ dawal su woto ba jékki-jékkee nag paan ci àll bi wala moom ci boppam mënut a dem mënut a yóbbu oto bi ndax wéradi dematut te kenn du duutu dem waxaale jàngoro joo xam ne nag day wàll di dugg ci nit te bala koo rey mu yàgg gis ngeen ger ak wut ci lu dul noonu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da koo gis mu xëy xëy na fóot génn ay lex génn ay wagg génn ab dënn euh, bu la wanee gannaaw mu mel ni guy guy tukki walla ndingul ngooñ luñ muur def na xay ndax loolee mu doon lekk te jële ko ci ger ba mu dundal yaram moo wee suux wu ci nekk naan ca ba màndi suux wooy moom sawar da koy xëccoo ak borom naan ko maa ko moom moomu te suux ba mënut a dem bàyyi fay moroomam te moroomam yi mënuñoo dem bàyyi fa jëmm in ann kulla laxmin labata min suxtin fa naaru awlaa bi fasaad nag bi yàlla wax ci alxuraan laa yuhibul mufsidin la wala fasaad fasaad dugg na ci dugg na ci yonent bi sallallahu alayhi nee na bàkkaar moom ki mu a topp mooy ki tudd ab julit ki na ko ba noppi waaye su ko yàlla di àtte ak ñëlee mu àtte ba noppi du ko jëlee ci njulit gi yóbbu ko fa gaayee ca des nekk waaye daf koy dugal ci buntub faasiq naafiq naafiq mooy kan mooy koo xam ne saa bu waxee yow yaa ko dese waaye génn na ci saa bu la diggee jëta duma sa doom bu ne la xaar ma jërut xaar yàlla da koy dugg da koy ubbi buntub naafiq mu dugg ca ba noppi su duggee ci buntub naafiq ba miin néeg ba mu ubbil ko mu jàll ci buntu wàllaa ba muy buntu faasiq inna al munafiqina fi daraki al asfali min an naar waaye inna al munafiqina humul su ko defee nee na kiñ gar tamuy ab jullit ña ko ña dox marché ba ña doon courtier ña ko seere ña ci jël nangam pour cent ñun ñépp ñoo yem ci bàkkaar bi te ñooña moo ne luñ ca amee dañuy jox ñeneen ñuy lekk ni ñoom yëf yi gën di tasaaroo ba réew mépp daj moo tax léeg-léeg war nañuy xool ba xam réew mi ñu dëkk ndax ñëpp dañ dem àjjanaam de ñi ëpp moom mënuñoo dem àjjana ndax dërëm boo xam ne loolu bokku ca néew na néew na nit jëfandikoo ko te xam na ne kii ku ko jox kii ku ko jox xam na liggéeyam bu toogoon ba mu fekk ko fa mu nekk jox ko ko sax tantan waaye da koy wër pour mu jox ko kooku moo waaja yam kayam ndax xam na ni muy xam na xam na ni muy amee. la Lamine Gueye waxoon ñi ëpp moom fa ñuy jëm baaxut mënut a gën daa laajoon ñim àndal lu réew mi wax fi mu ne ndax daa tukki woon ci biir campagne électorale. ba mu ñëwee lu réew mi wax ñu ne ko ñu baax ñëpp ñun lañ àndal xel dal na mu ne leen looloo dal seenam xel yéen yow xamagu leen dara mënut a ñu ne ko ah mun nañu baax ji bariwuñ waaye li baaxit ab jusi war koo lekk lu néew la gannaaw nag coowul alal daa xew ku ne di ca wax xamaguñ dëgg-dëgg li ñuy soxlu mu doon waaye nag laa tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah bu mu yàqal jullit yi seenub liggéey bu mu leen yàqal seenub jaamu yàlla bu mu jël seen waxtu yu ñuy warante naan kii laa kaala te duñ ci am dara ñoom te yàlla buñ ci am dara <coughs> su ko defee wolof nee na woon xam li lay dal amul njëriñ am na yoo xam ne xam ko bañ koo xam sax a ko tane moo ko gën fuuf sax loo xam ne xam na xam nga ne mi ngi ñëw dal mi ngi lay dal wolof nee na amul njariñ waaye li am solo mooy bu la dalee nga xam noo koy noo koy faje te yu mel ne coow yooyu ak i bokkam moom xam ko amul njariñ kon na jullit yëpp dellu ki seeni liggéey te fas yéene ñoom la liggéey lu mu néew mu bari na doon loo xam ne bu ki seen yaram dundee it day rees ak jàmm ñu ànd ak moom def aljanna ëllëg yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te musul seytaane ak pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin